ne peut-être parrainage mën na leen téye su fekkee effectivement on s'inscrit s'inscrit dans dans une logique de faire une élection non une sélection su fekkee sélection amul moom ñun de toute manière ça fait plusieurs années ou quatre ans ñoo ngi liggéey et ñun on travaille dans la politique de développement je pense que la dernière fois mu ñu fi expliqué on travaille avec les groupements de femmes avec la jeunesse on crée de l'emploi ok on forme des c'est une politique de développement centrée sur le développement comment on fait pour impulser la le développement depuis la base pour mën a aujourd'hui yóbbu Sénégal fu sori donc par par l'exemple déjà par l'exemple inviter la population à la participation c'est-à-dire la citoyenneté mmh. naka na ñuy def bëgg ku nekk Sénégal bu nekk se sont concernés andi xeeram ci tabaxu Sénégal ñun on s'inscrit dans cette logique. dinañ ñëw ci li nga xamante ni moom nga ñuy proposé mais mm-hmm. tey euh, ci lan nga nattee sa bopp euh, ba bëgg a dem ci élection présidentielle 2024. mais c'est suñuy base parce que depuis longtemps on fait la massification on est on a une représentation nationale si région bu nekk on a on a. une ah bon représentation une représentation nationale. mais bien sûr ngeen def élection. mosuñu dem élection mais. kooku loolu tey élection élection aujourd'hui élection aujourd'hui pour nga dem fa il faut nga il faut qu'il y ait une première à toute chose. Mm-hmm. ñun on a décidé de partir cette fois-ci déjà les législatives. on on on s'était préparé pour dem élection législative effectivement on était retenu par le parrainage on a une expérience sur ça et tey ñoo ngi ñëwaat ci présidentielle pour mën a euh, conf pour mën a corriger erreur yi nga xam ni defoon nañu ko peut-être ci législative yi lu tax jàlluñu parrainage et là on travaille sur ça pour pouvoir euh, passer ce cap et aller aux élections inch'Allah